te alxuraan dafa amul mu santaane woon ci ay teggin ci saxaaba yi ci seen diine rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun inna allaziina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaa'ika allaziina imtaxana llaahu quluubahum li taqwa lahum maghfiratun wa ajrun aziim te al-ulamaa warasatul anbiyaa kon fii sëriñ bi toog tey moo fi doonu sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa moo doonu Rasulullaah kon nag képp ku toog ci jataayam war ngaa bàyyi xel bu baax ci ay teggin war ngaa bàyyi xel bu baax ci war mooy barab bi war ngaa bàyyi xel ci ki nga toogal ndax moom kat bëggut ko wax ci moom waaye ku am jëmbu ju màgg ju toll ni moom war ngay fàttali nit ñi ci ñu àndal doon ndax ñu mën a jariñ ci moom ndax Serigne na xam ko am ko te xamoo ko dara jël ko mu ñàkk ko te am ko xam ko amoo dara jël ko kon nag kii ñu toogal ni ginnaaw bu mu dooree Serigne Touba koo ko xam ne xam ne amul yitte àdduna léppam jeexal na ko ci yàlla léppam jeexal na ko Sëriñ Tuubaa muy jëmm joo xam ne itam àdduna boolewu ko sax ci mbiram ba ma ko xamee ba fi ne musuma dégg yitteem yu jëm ci wàllu àdduna musuma dégg mu ñaanu courant musuma dégg mu ñaanu yoon musuma dégg mu ñaanu ndox fu ma woowee yónni ma rek soxlas keneen la doon waaye moom ci boppam sax li nga xam ne ay dëkki boppam la amu ci lenn loo xam ne moo koy sàkku ma ñaan kon jëmm ju ma noonu ku ko yàlla defal mu wëlbatiku nag topp ci njabootu Serigne Touba bi di doomi Serigne Touba di xalifay Serigne Touba di ay magam kenn ku ci ne mu tërbiyewu la jël bokk gi jënd ko ak taalibe bi ba laq sa garab kon ku bari garab la kon nag képp koo xam ne ñëw nga ci garabam war ngaa xam ne booy sàkk lu baax ba ak sa ci na sam xeet rek ci la doo ko képp ku nekk moom tam te xamoo loolu tam lépp lu la ca dal kat yaa ngi koy sow ndax Sëriñ Tuubaa daana wax ne nit dana ma jege ba noppi sori ma waaye nit dana ma sori ba noppi jege ma kon am solo mooy fexe ba bañ a nekk ci xelum sëriñ bi te nekk ci xol loolu mooy li am solo kon yàlla nañu ci yàlla dimbale ba ñu ànd moom ci dëgg ànd ak moom ci positif te sellal li ñuy def suñu digg moom ci biir xol kon président sëriñ bi nee na ñu ngi koy baax. di la sant di la gërëm ci ñëw gii nga fi ñëwaat tey te fas yéene itam ni moo ko waxee ma jéem sama kéemtalaay kattan ngir jottali li nga xam ne wax na ma ko ndax wa man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa' maq'adahu mina n-naar kon nit lépp lu muy wax ci àdduna rek war na ko mën a seer ngir ëllëg kon sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax cant gi itam rek. nee na ci sa jëf la ko teg ndax njëkk muy toog ci jotaayu Serigne Touba bi naka jëkk ëmbal ko ko jofeel àndal ko ëmbal ko ak fonkeel jël sa lépp jox ko ba xam ko lépp loo xam ne itam maçon boo xam ci yitte joo xam ne lu ko jege la def ko kon moom nee na jëkk dangaa dëkk ci di ko teral kon nee na nag teraanga jooju nga xam ne moom nga ko doon teral Serigne Touba rek a nee na moom nam la ko waxee woon rek daanaka amu ci lu mu ci dolli wala lu mu ci wàññiwaat ndax loolu naa am tuuti lu ma ci leeral bala maa jeexale ci kat yi nga xam ne moom la ma mujj waxaat démb danaa la ko waxaat fii nga ñëw na sam xel dal bu baax ndax sëriñ Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaar bi tas miinu yoonu kër Sëriñ Tuubaa kon nag bu fekkee yàlla dafa def nga ñëw ci moom ñaanoon ko ndigal ne ko bu ma soñoon bu ma ubbi campagne bi tàmbalee fii ci yow nga ñaanal ma ma dem ci barabu Sëriñ door a tàmbali la may yëf ci mbirum adduna ma def ko mu nongul la ko keroog ba ngay ubbi Ila Tuubaa bi kon nga defewaat ko noonu loolu itam kon na sam xel dal ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne anna man waasalani laa li xaradin dun yow yi fa innahu yakunu minal muqarrabin wa annama alwaasaliina li dunyaa faqat fa inna llaaha yukrimuhu maa daama xayyan nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te dara yi àdduna taxul a jóg suñu borom daan la boole ci ñoom bu mën a jeyal képp koo xam ne da ci man ngeen àdduna rek suñu borom daan la teral diiru sa moo tax dafa waxoon Cheikh Abdoulaye Bakr dafa waxoon ne Serigne Touba dafa waxoon ne ñi fi ñëw yàlla suñu borom dama koo liggéeyal ba mu ma àdduna. ma teg ko ci sama biti loxo moo tax képp ku ko fi sàkku si ku ne daa ko am daa di wax ne ñi fi ñëw ñaar rek la koo xam ne adduna leen bi ak koo xam ne àllaaxira leen bi nee yëpp nag suñu jox na ma kon nag ki ma daal mooy xam ne ma yàlla def neexu kon na ne am na bu ko waxoon ne ko seex min kum man yuridu dunya wa min kum man yuridu laaxira ñii adduna leen tax a jóg ñii alaaxira leen tax a jóg Sëriñ ma ne ko wa inna lanaa lal-aaxirata wal uulaa adduna am na fi ku ko sàkk fi mi fi alaaxira mi fi ku ko sàkk fi am ko kon nag na sam xel dal bu baax a baax te xam ne képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa waxuma la lu ñaan wala lu mu bëgg waaye lu mu la yéene rek suñu doom daal da ci dimbali te moom xam nañ sa yéene ci moom ndax waxoon na ma ne ma naa la wax dana xam ne lii sa yéene. mooy yéene ji nga am ci réew mi nga mottali ko na kon nag moom faw li nga ko sédd ci boppam mooy mu ñaanal la yéene ji nga xam ne am nga ko ci réew mi yàlla na la ba nga mottali ko waxaan na ma it dama naa la moom Sëriñ Tuubaa rek la am bëggul dara Sëriñ Tuubaa rek la am moom rek la bëgg nee na itam xam na ne yéene ji nga am moo tax sa mbir da koo jël tàbbal ko ci biir liggéey bi muy liggéey Sëriñ nee na mu xamal la ne sa mbir yëpp jël na ko jébbal ko Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa bu mu ko jébbal rek te nga ko ko jébbal di am ci wàllu ko naqare rawatina jamono jii kon nag booy woo sama xel dal sa njort rafet mu wóor la ne li ngay sàkk moom ñaanal la ci taxaw nga ko kon ñu ngi jeexal foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh doom jeexna tàkk ñaar day tolloo nga ñaanal ko sa doom bi ma nga ne ba kaw la ñëw sa doom daa nga ne Moustapha Sow